thank you tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di ñu seetaan fii ci Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte nag ak contentement rek di jàkkaarlu ak yéen saa su nekk ba tax na nag tey euh, dama leen di dalal ci seen émission ëttu maam ëttu maam nag euh, comme ni ma leen ko waxee woon rek c'est la société en miniature lépp loo xam ne dafa nekk ay fait de société ñu koy gis ci société bi dinañ dal di toog fii ci ëttu maam daal di ko faram-fàccee waaye à chaque fois rek maa ngi ciy ànd ak ay ndaanaan ay kilifa yoo xam ne macha allah bu ñu waxee rek dinañ leen dégg ndaxte lu ñu wax rek téere la bu ñu waxee di nga ca jàng dara mbaa nga am loo xam ne rek dina la jëriñ ba tax na nag tey damay ànd ak ku ci mel nii rek oustaz oustaz nuyu naa la. am na salaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatuhu. leen di nuyu. di leen ziyaar nuyoo bi nag ñu ngi koy teg ci sa loxo. di boole nuyoo bi ak ñi nga xam ne moom la yàlla dogal ñu bokk jotaay bu am solo bi ñu fas yéene waxtaane fii ci Equivox TV ñuy ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mbooleem loo xam te ne seen yéene la seen yitte la yàlla naka yàlla yéegal ba mu kawe ba mel ni jant boo ko defee fépp ci àdduna bi ñu leen ci bàyyi xel ndax ay jeune rek lañu fi gis te jeune moom yitte moom moo koy may mu yegg fu mu war a yegg rek yàlla na yàlla taxawu leen ci biir mu nekkoon imam Lamine Diagne waaye ba tey nag buñ ne ëttu maam ëttu moom euh, maam da cee baax ndaxte nag maam des fois bu xale yi dëngee moo leen di dëngërti ba tax na tamit dama ci ànd ki nga xam ne rek moo di maam Ibou Ndiaye ñaxo baay maam dalal ak jàmm. jërëjëf euh, xanaa rek ñu ngi nuyu sunu bokki téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp di wax rek ne euh, télévision bii nga xam ne mooy Equivox TV. dama koy tuddee la télévision de l'avenir nañ ñu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu fas yéene lépp loo xam ne aada la ak cosaan ñoom maam daan ko dund ñoom bàyyi daan ko dund ñu dicté ko xale yi ba nga xam ne bu ëllëgee dinañ xam fi ñuy teg seen tànk ci kàttanu yàlla am na solo maam waaye ba tey ci biir ëttu maam boo duggee ci biir ëtt bi di nga fekk maam fekk fi yaay fekk fi papa waaye tamit di fi fekk doom ba tax na tey nag damay ànd ak la ravissante Soxna jaara dalal ak jàmm. <laughs> ami maa ngi lay nuyu di nuyu également imam ak euh, suñu maam bi ñu fi fekk mu di papa Ñoxo Baay ñuy am mbégte bu baax a baax di toog ak moom ndax daan nañ ko gis muy def lu am solo papa maa ngi lay nuyu. di la ñaanal yàlla dëgëral cër yi. waaye bàyyi la fi it ba ci kanam ak kanam. di nuyu également mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan yi nga xamante ne ñoo safoo li nga xamante ne moo di euh, Equivox mais ñu gën ci euh, choisir li nga xamante ne moo di ëttu maam. Mm-hmm. ëttu maam nag comme ni nga ko waxee rek daanaka faram fàcce nga ko ba pare. Mm-hmm. ñuy amati mbégte waaye kontaante bu baax di fi teew. am na solo soxna jaara tey nag ñu indi leen thème boo xam ne ñu bëree koy waxtaanee muy maraboutage maraboutage nag boo ko déggee ci olof rek moo di njabar waaye njabar ci biir sëy nekk loo xam ne nag fi mu nekk nii société sénégalaise bi dañ ko jox bopp torop torop ndaxte nit yaakaar na ne lépp looy def rek te boole woo ci li nga xam ne moo di njabar defoo dara ba tax na tey nag loolu di maraboutage ci biir sëy moom la ñuy daal di waxtaanee da ngay jóg ne ca sëriñ ba dama bëgg nga liggéeyal ma sama jëkkër ba du takk ñaareel man kese ma nekk ci kër gi nga dem ca sëriñ ba liggéeyal ma sama doomu wujju bi liggéeyal ma sama wujju ak yeneen ak yeneen nekk loo xam ne nag tas na sëy yu bari tas société bi oustaz lu ci diine wax waaw ñuy rafetlu tànneefu thème bi hmm. ndax àdduna moom eh, jamono lu mu làcc rek dañ ko war a teg si penc mi pour ñëpp waxtaan si ngir ñu jële si ay njariñ kon yàlla na yàlla def rek si fas waxtaan bi ñu fas yéene waxtaan mu jural njariñ képp koy déglu euh, alquran moo wax ne yàlla mu ne bu ngeen werantee si mbir xool daggan ngaak xaraam ngaak ànd geeg ñàkk gee ànd ngi ne yooyu yëpp bu ngeen si weerante nee na ngeen laaj suñu boroom subhanahu wa ngeen laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñi nga xam ne ñooy boroomi ndigal njibar nag si turu olof bi baatu njibar dafa xaraam njibar ak cëriñtu bokkul xam naa nag foofu mu après foofu ñun leeral bu waxtaan bi gënee dem bokkul mais njibar bokkul ak cëriñ mhm. ak njibar bokkul boo déggee ñuy wax njibar mhm. mooy lépp loo xam ne dafay dem si luy lu lu lu ñaaw dafay tiire jëm si lu ñaaw boo xoolee moo waral yenn sacrifice yi nga di ko gis si anam bu mu gën a ñaawee ñu di ko def si suñu jamono bi nga di ko gis sa moroom di ko gis keneen a keneen di ko gis loolu bokkul ak ku am lu mu war a ñaan lu mu ñaan ko loolu leneen la xam naa loolu du wax bi sax mais baatu njibar si boppam mooy as sixru dafa bokk si li ñuy tuddee mu mu bi mubiqaatu sabaa yeneen yonent bi moo waxoon almubiqatu saban mooy almuhlikat almuhlikat boo ko déggee mooy yoo xam ne ku ko topp rek boo ko boo ko bàyyiwul boo ko tuubul si alkande la la jëme mooy al al almahlakatu alkande nit ki alku na kan mooy kii alku mooy ki nga xam ne dafa nekk njibarkat wala kii di demlu si njibar pour ñu njibaral ko mooy lépp lu ñaaw rek njibar lañ koy tuddee bokkul ak cëriñtu nag am nag ute xam naa bu laajee ñu gën ko leeral ñu leeral lan mooy ak njibar ak lan mooy cëriñtu ndax njibar moom dafa doon loo xam te ne alquran daf ko dàq beneen bi it yone yàlla nee na képp ku koy def yéefar nga kaafirun kon nag njibar yàlla nañu si yàlla musal waaw mooy oustaz njibar ak sëriñtu euh, am différence lan mooy différence différence bi mooy ak njibar dafay dellu si wàllu deret lu ëpp lu ñuy jëfandikoo wàllu deret la ndax njibar sacrifice te sacrifice mën na nekk si Euh, comme xam nga nit mën na feebar feebar boo xamante ne faw mu saraxe pour wér mu dem am yéeneem lu ko kenn digalul dem jënd xaram rendi ko wala gàttam bu mu si mën doon si yi ñuy rendi mu defar ko loolu sacrifice boobu mu def yàlla la ko defal loolu kenn du ko dàq Seydina Ibrahim suñu maam Ibrahim ñun ñëpp gis nañ ne dafa amoon yéene jaamoo yàlla njabootam bi ma may yéene jaamoo yàlla njabootam yàlla wutal ka xar kon yéene bi mu amoon mooy si kaw ndigalu yàlla mu jaamoo yàlla nit di dereetam di doomam di taawam kon loolu mu amoon yéene sacrifice boobu doo ko tuddee sacrifice bu dellu si wàllu shayatin yi mooy shaytaane yi bokkul ak ki nga xam ni yi muy def dañ koy delloo si jaahiliyatil uula al jaahiliyatil uula nag moom mooy réer gi njëkk lislaam foofu la njibar soxe ko ndax njibar jiitu na si jamono boobu loolu nag ñiy topp si xam-xam yooyu di ko dundee ba jamono bi alquran ñëwee ñu bàyyi loolu ñu bàyyi alqur ñu bàyyi fi dellu si loolu loolu ñuy tuddee njibar bokkul nag ak ak sëriñtu ak sëriñtu boroom xam-xam yëpp eh, képp kuy jàngale sëriñ nga mhm. jàngalekatu daara ay sëriñ lañ ñi nga xamante ne ñooy yar nit ñi di yar ruux yi maanaam yar ruux mm-hmm. xam nga yar ruux moom mooy nga fexe ba nit ki jikko bu baax am du njub sax mais maay jikko bu mu mën a dundee nit ñi loolu njub parce que xam nga tey nit bu fekkee bay wax ak nit man nga wax ba jeexal te sa kàddu doo si dégg saaga doo si dégg luy vexé ki ngay waxal mm-hmm. kooku njub la boo jëflantee nit si alal du la xepp boo jëf jëflantee nit si leneen ak leneen ak leneen du la xeeb loolu njub la loolu ku ko def si nit sëriñ nga beneen bi ki nga xam ne nag dafa am bopp buy metti mhm. mu ne naa ñëw si papa ñoo ko bàyyi Diouf mu ñaanal ma ma wér mhm. ñaan googu kooku di def gi mu koy def sëriñ la ndax mocc ga mu koy mocc jamono ba mu koy mocc sëriñ la mhm. loolu bokkul ak ki nga xam ne dafa sukkandiku si xam-xam yi fi jiitu lislaam boobu lislaam ñëwul te yooyu lislaam xam nga si yonent yàlla aadama ba tey lépp lu fi di njub rek lislaam la waaye bii moo nekk synthèse u yonent yi fi nekkoon yëpp ku si nekk la nga doon oote sa synthèse Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee daf ko mottali ñu nag bi ñu fi nekkee dañ doon xeex njibar yonent yàlla Moussa danaan xeex njibar yonent yàlla Souleymane ku fi nekk du yonent rek jànkonte nga li ñu jànkonte ci tey nga xeexa moom waaye xam-xam yooyu dafa am ñu koy donnante di ko donnante ba suñu jamono tey waaw oustaz Lamine ñu dellu si ci biir sëy bi waaw euh, yow ngay woote ne sëriñ nga mhm. ab jigéen jóge fee ñëw ne la dama bëgg nga liggéeyal ma sama jëkkër ba du xool beneen jigéen du takk ñaareel man kese ma nekk ci biir kër gi mhm. mu noot ku góor ki ba du mën a bouger du def leen loolu ci sëriñcu bi la bokk wala ci njabar ñaar yëpp dañ koy def noot sëy noot si sëy dafa xaram loolu ñu naka ñëpp xamee noonu noot si sëy dafa xaram waaye nag lu la jibale sa boroom kër wala lu la jibale sa ay doom loolu xaraamul waaye naan noot sama jëkkër ba lu mu wax ne waaw naan noot sama soxna ba lu ma ko sante mu def wala naan noot ki nga xam ne mooy sama jëkkër ba benn ba xam nga am na ñuy def lu am na ñu dañuy jël mhm. seen boroom kër ba bu amee beneen jabar daanaka bu fa demee du fa waaw noo ma sax jéng gi sax jéng gi sax jàmm la waaye dinañu fexe ba bu demee si beneen soxnaam ba du fa mën dara hmm, takk xala takk xala si beneen soxnaam mais bu ñëwee si kër gi rek yàlla dogal mu doon la mu doonoon waaye bu génnee dem si beneen soxnaam nga gis yàlla dogal loolu dal ko fa loolu dafa xaram hmm. waaye nag naa ñaan sama diggante ak sama boroom kër yàlla defal ma si jàmm sama diggante sama boroom kër yàlla defal ma si sutura loolu moom ko ne sañ nag waaye bokkul nag ak noot ndax noot dafa xaraam am na ñu koy def nag ñu ngi def lu xaraam am na tamit ñuy def balaa ñu dugg si sëy bi jigéen jiikat du ma rëcc comme nga ne soxna ma am jaara mii kat du ma rëcc du ma rëcc nga fexe ba am dara si moom wala ba amul dara si moom yebal ay ab sëriñ pour mu ñaanal la si moom ba nga mën ko téye ba kenn keneen ku lu léew du ko takk mhm. dafa xaraam ndax jigéen kenn du ko noot ba noppi doo ko takk Euh, dégg naa suñu benn kilifa gu baax di wax ne jigéen boo ko nootee muy sëyeex yow feex si nooteel gi lay sëyeex yow rek yaa ngi moom jàppal ne ki ngay sëyal nit góor tamit boo ko nootee ba mu takk la feex yaa ngi sëyeex moom jàppal ne ki ngay sëyal du nit ndax àndul ak sagoom ndax noot mooy forcer nit ki si lu mu dul ànd ak sagoom kon si biir sëy dafa nekk lu xaram bokkul nag ak nga am problème si sa borom kër xool ku baax ko óolu ko ku sell nga wax ko ne que man kat dama bëgg nga ñaanal man la sama diggante sama boroom kër fan yi neexul mu ne la ah kon de nañ waslu si suñu diggante suñu boroom jël al quraanam wala leneen leneen jàng la muy jàng yàlla def sutura loolu moom lu lu jaayiz la kay lu dagan la si lislaam <laughs> euh, maam maam Ibou Ndiaye nekk ci biir sëy làmboo li nga xam ne moo di njabar jërëjëf tey da nga indi boo xam ne thème bu am solo la ndaxte damay wax ne cosaan moo fi jiitu diine cosaan a ñëw ba pare diine soog a ñëw diine nag du mu dikkee dafa am lu mu nungu am lu mu bañ mais ji nga reen ak sunguf lépp njibaraan la mocc bopp dañ ko daan mocc bopp buy metti bañ buy metti tànk yu metti même damm damm dañ ko daan mocc ba mu dellu fa mu nekkoon kon euh, loolu aadala la mais dañu dem tey ba société bi xale yu jigéen yii man du xale yu góor yi xale yu jigéen lu ñu am sëriñ ko lekk <laughs> euh, alxuraan. Mhm. oustaz ak ni toog yàlla def cee dëxëñ lépp alxuraan amul lu bon lu baax rek la alxuraan am dëgg rek moo nekk ci alxuraan waaye ñaan ak liggéey dafa bokkul liggéey nit ak ñaanal nit ki bokkul ki nga xam ne sëriñ la day ñaan da lay ñaanal ñaan nag am na doomu aadama yoo xam ne lu ñu ñaan yàlla yàlla def ko parce que nitu yàlla lañu am ñoo xam ne dañ lay njibar njibar mooy liggéey dëkk ci nit ne ko defal ma nit kii lu bon nga defal ko lu bon loolu lu bon loolu mu def lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti am nga ci part de responsabilité boo xam ne yow bu ëllëgee luñ la ca joxit boo ëllëgee di nga ko contrandiloo sa diggante ak yàlla mm-hmm. liggéeyal ma kii mu def liggéeyal ma kii mu dàq ñu dàq ko ci liggéeyam liggéeyal ma kii seeyam tas loolu lépp njibar la te dama dem ba ci biir làmb ji làmb ji am na ci mbër yoo xam ne dañuy dem ci sëriñ mu ñaanal leen mais saafara yi ngay ji suñu di ko tuuroog li ñuy mëkk li ñuy lekk ak li ñuy suy ci nen yi ñuy toj ak yooyu yëpp njibar la mhm. da liggéey liggéey nag dafay loo xam ne sa diggante ak rabbu samaawaati maa fi ard la ndax ku def nit ki lu bon compte rendu di nga ko rendre sa diggante ak rabbu samaawaati maa fi ard bokkul ak ñaan nag doomu adama mën naa jàq dem ci sëriñ mu ñaanal ko mën naa réer dem sëriñ mu dindi ko te doomu aadama mag ñi lu ñu daan def dañ koy seetlu béréb sàngam day laa jëm maa ngi seet ba xam yoon bi boo déggee ñu naan euh, euh, tëni mm. dafa araam mm-hmm. loolu la yàlla euh, paaka kenn du ko jiitu ci mbaram mm-hmm. yàlla kenn du ko jiitu ci li mu def mm-hmm. doomu aadama bi nag lii oustaz wax léegi dafa am solo parce que dafa am doomu aadama yu bari yoo xam ne sóoruñu seen diggante ak rabbu sama fil ard te ku kenn ci ñun xamul lu la fi indi boo dee dellu kenn du xam lu lay delloo waaw bi ngay laataa juddu foo nekkoon bi ngay laataa doon li nga doon yow tey ba doon li nga doon loo doonoon boo fi jógee itam loo rafet rafet loo bari le bari le loo civilisé civilisé gas bu mu xool rek dugal ci biir suuf te kenn benn milliardaire deewu fi ñu jël jasineer laxase la ko. te mooy dëgg waaye. Euh, wala tergal bi ba léegi papa dañuy nekk ci biir sëy bi yaakaar ne daal sëy bi jabar jee ko war a mën a téye jox nañ la garab nga dem sotti ca kafe ba jox ki nga xam ne moo di sa borom kër jox nañ la téere wala galañ nga dem mu ngegenaayoo ak yu bëri yoo xam ne daal da dem. ba yenn góor ñi góor ñi sax ñu ci bëri loolu da leen di fàtt mm-hmm. wala ñu jox leen feebar yoo xam ne seen yaram dañuy diis Uh, xam nga oustaz wax na la ko léegi. Mhm. dafa am loo xam ne. Mhm. Euh, bopp la. te it bopp dafa am ñeent ñu ci ne. conscience savoir expérience mhm. mémoire wër leen muy bopp doomu adama kookoy les quatre points cardinaux de la personne bopp mooy nit am na ñoo xam ne nag euh, buñ dee nit parce que di nga gis nit mu nekk nit nii te nitewul nit ki balaa nekk nit day nitee bépp doom aadama bu jóg oustaz wax na la ko léegi dem ci sëriñ mu ñaanal la pour nga noot sa jëkkër wala nga loo nga diriger sa jëkkër mbaa nga diriger sa patron mbaa yaa xam leneen loo def am nga ci daane yàlla sa diggante ak rabbu samawaati wal ard benn jàmm sax doo am ca kër ga gi nga def sa diggante ak doomu aadama boobu mhm. parce que dafa am lu nit ñi xeeb te mu am solo lool te nit ñi faale ko mhm. muy àq àq kenn mënu koo baal kenn ku ki nga ko def mhm. yàlla li muy baax baax baax li dox sama diggante ak doomu aadama bii toog ma def ko ko wala ma wax wax ko ko kenn mënuma koo jéggal ko dul moom moo tax poñante ba di bari ëllëg bar sax damay poñe kii kii poñe kii kee poñe kee bu euh, euh, yàlla mu baax mi nag euh, day taxaw rek ne jéggalente leen ma jéggal leen parce que yàlla yorul lu bon mais jigéen ñii nga xam ne tey lu ñu jug am ko mm-hmm. sëriñ leen ko jox te lu la njëbar jox. lu la njëbar may. njibar a koy nangu. Mm-hmm. bokkul ak ñaan nag. Mm-hmm. ku nekk am nga sañ mm-hmm. sañ-sañu ñaanlu. man damay ñaanlu keneen day ñaanlu da nga yaakaar damay dem ci lamb ji ay ca ay ca nii rek eh, eh, eh, nen ah, damay <laughs> damay dem nag seet ku man ne ko ñaanal ma lu ma musal lu ma mosal. du Ndiaye Rose ma waxoon loolu. na ma ñoo ko bàyyi ma ne ko mu ne ma ñaar fukki dërëm yu ma am. juróomi dërëm yu sëriñ lekk. ma ne ko da ngay da ngay da ngay mu ne ma déedéet mu ne ma nit ki na dem ci ku man mu dem jox ko li mu yor ne ko ñaanal ma lu ma muusal ak lu ma mosal boo dee mucc di mos doo am benn problème mais am na ñu bari ñu dee ñoo xam ne dañoo mucc mosuñ ku bëree wul ñu bëree daanu sa kaw gis nga euh, fag euh, euh, fagaru sa bopp aar sa bopp lu am solo la te yéen génération bi gëmu leen càngat loolu euh, oustaz na ci ñëw léegi doomu aadama bi nii sa mbubb mi di tilime nga fóot ko gome ko paase ko noonu la sa yaram di tilime yaram wu tilim nag dañ koy sang ba mu set la nekk ca yaram wa dañ luñ la ñaanal yàlla mën a nungu mais am na borom yaram yu tilim yoo xam ne loo leen ñaanal balu tàng sa lay doon bu dalee day del si mi ngi am na solo maam soxna jaara mu mel nii jabar ji dañ koo bëgg a ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi rek te niñ koy gisee ci góor ñi noonu niñ koy gisee ci jigéen ñi noonu lañ koy gisee ci góor ñi tamit dëgg la ami mhm. alhamdulilah gannaaw ba ñu yàlla mayee mhm. ñu fekkee li nga xamante ne moo di plateau bi te tal ko mhm. alhamdulilah aussi ba nga xamee ne ñu ngi ci euh, ëttu maam ñu gis imam mu toog mhm. muy kilifa diine euh, suñu maam ñu ko bàyyi moom tamit ñu mën koo wax rek euh, muy kilifa aada ndax mun mhm. nañ ne yaa fi teewal tey aada bi mhm. wax dëgg yàlla waaw man damay ñëw d'abord ci euh, mariage bi parce que dañu ne njabar mariage mu diggante ku góor ki ak ku jigéen gi sànq ba léegi ci plateau bi ci ñaar ñooñu rek la yem te mariage dafa yaatu Euh, mariage monogamie am na. Mhm. mais ba tey goro bi mu ngi ci. Mhm. papa ji yaay ji. Mhm. njëkke yi. polygamie. yàq say wujju foofu la njabar bi gën a euh, frappé. parce que buñ ko buggee yemale ci ku góor keeg ku jigéen ki rek day xaw a restreint. alors que dafa yaatu. fa dëgg yàlla. njëkkee dina liggéey jabaru magam wala jabaru rakkam. ngir mu génn kër ga. voilà wala. pour lu ku góor ki am mën leen ko di jox bàyyi jabar ja ce qui n'est pas du tout normal ndax ku takk jabar nag mhm. ku jëlee jigéen kër ndeyam ak kër baayam boo ko indee war ko mën a defal vraiment ñu gis tamit njabar gi ci diggante ay wujju mhm. lan na ma sama jëkkër gën a bëgg man na ma gën a toppatoo mhm. xalab ka wax fa dëgg yàlla amul benn sens li ñuy wax rek lof njaay nee na yàpp yëpp bu ñu meloon ni res billaay jaasi du ci amu yoon wallaay dëgg waaw foo gis rek chaque jour foog mu am ay bërëb bërëb yi galaise mm-hmm. ñooñu nag ñoo tax ñu toog fii tey mm-hmm. am na solo njabar nag moom suñ koy wax fii ba suba du fi jóge rawatina ci dans le mariage mm-hmm. dans le mariage ndax nit dina liggéey wujju peccorgoom te pourtant bokkuñu jëkkër mais mu liggéey ko juste parce que gis na ne kële jëkkëram macha allah moom la yàlla gën a suturaal mu bëgg ko liggéey pour kooku ñàkk loolu moom mu am loolu c'est de l'égoïsme pur mm-hmm. et dur mm-hmm. njabar daal jàpp naa ne am yi bu ñu koy waxtaanee fii ba suba dans le mariage mm-hmm. du jeex mënul xaj sax ci benn plateau franchement dëgg la am na solo waaye ba tey rek euh, oustaz euh, njabar tani ci la bokk mu mel ni tani bi tamit am na côté boo xam ne lislaam da ko bannir euh, comme ci pertaaw bi wala listaxaar bi. Hmm. boobu tamit boo ci mënee indi ay leeral dina baax. waaw di rafetlu kàdd yi fi jib ndax mag ñi dañu wax ne. Hmm. ku dund téeméeri at. Hmm. ak ku dem téeméeri dëkk. ak ku jàng téeméeri téere bu ñu toogee rek seen waxtaan seen waxtaan dafay am solo. ñoom ñëpp ay boroom xam-xam lañ waaye booy déglu nag. Eh, da ngay déglu ki nga xam ne moo dem téeméeri dëkk. ndax dina xam réalité yi nekk si yeneen dëkk yu bokkul la sa dëkk ba mën a àtte jamono mooy góor gi parce que boo ko déggee ni mu àttee si diir bu gàtt rek da ngay comprendre yow mi jàng téeméeri téere ne wax na si téere yi sax loo nga xam te ne yow jàng nga te dégguloo kon looloo tax olof ne mag mat naa bàyyi si réew euh, li nga wax nag mu ñëw si mooy wàllu tani yonent bi daf si wax sax yu garaaw mhm. dane ku dem si seetkat mu wax la nga gëm weddi nga li ñu yónnee liñ ma yónnee maanaam weddi nga lislaam ndax li gën a am solo mooy nga bàyyi sa bopp yàlla ëllëg parce que li mu wax rek fi ñu toll xam nañ liy xew si saal bi waaye bu ñu génnee léegi xamuñu luy xew fekk treize heures wax dëgg yàlla kenn mënul giiñ si dogg fii ci ñu fi toog na fekk treize heures naa nga may xam moo tax yonent mi ne bàyyi leen la seen bopp yàlla nee na ku dem si ab tanikat mu seetal la nga gëm li mu la wax li ñu ma yónnee man Muhammad weddi nga ko ku weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weddi nga yàlla ku weddi yàlla nag te tuubuloo weddi gi lu jiitu ngay génn àdduna soo dee mbugal topp la beneen bi mu waxaat moom nee na képp ku dem ci seetkat nee na boo fa demee rekk seetlu mu wax la nga gëm walla gëmuloo ñeent fukki fan mooy 40 jour loo si julli yàlla du ko nangu. wallaahi ah, boobu oustaz bu ne bu fekkee pettaaw bi la boo ko laalee. la ko wax. pettaaw mooy seetkat bokkul ak istixaara istixaara nag moom moo ko sante. Hmm. waaye ci seet yi am na ñoo xam ne dañuy seetee ay ndox. waaw am na ñuy seetee ndox am na ñu si boole loolu nag am na ñoo xam te ne dañ si boole kurus. Hmm. waaye kurus dafa am nañu ci seetee. Hmm. am na ñu si boole alquran ne si la bokk am na ñu seetee si alquran xam-xam boobu Seydina Ali la génne ku kawee dina xamuloo looy xamuloo looy wax. Mm-hmm. Seydina Ali karamallahu wajha moo jàngale seet boobu ñuy seet si alquranul karim mm-hmm. mais bi wér. Mm-hmm. mooy ku seetee petaaw ak xotti gerte. ak banta yi yooyu la alquran tudd. ku si seet ba noppi nga gëm li mu la wax. ñeent fukki fan loo julli yàlla du ko nangu ñeent fukki mm. loolu yonent bee ko mm. kàddu yonent bi la mm. quarante jours te quarante jours lu ne xaj na fi mm-hmm. ñu ne quarante jours doo si julli lu yàlla nangu loolu yàlla nañ si yàlla musal mm-hmm. si ku gëm ku dem si seetkat daal bokkul ak istixaara istixaara nag mooy tànnaloo yàlla foofu nag dañ fa war a leeral dara ndax xam nga istixaar mm-hmm. am na ñoom tamit dañ jàpp ne bu nu listi boo defee istixaara faw nga mën firi génte ndax tey yàlla maa ngi ñaan yoon wi ma bëgg a dem wala kër gi ma bëgg jënd wala soxna si nga xamante ni moom laa bëgg a takk mm-hmm. nga tànnal ma ndax baax na si man wala istixaaram mooy tànnaloo yàlla mm-hmm. parce que xamuloo wa xayir wala taxtar fa kay fa ixtiyaaru naa ku xamul doo tànn da ngay bàyyi kii xam tànnal la mm-hmm. yàlla mi nga sante mu tànnal la nag ne soxna si dama bëggoon yàlla nga wan ma ndax sama diggante moom dina baax wala déet fa nga mën a firi génte ndax léeg-léeg nga gis nga def ko nga tëdd guddi ñu wan la benn ndox ñu won lay ndox ndox ndox mu mu rafet moo ñeme. Mm-hmm. loolu lu muy firi si ñuy def istixaara dañ lay wax ne la loolu baax na demal. Mm-hmm. léeg-léeg nga def ko nag gis ndox mu nëx ndoxu foos yeeg ndox mm-hmm. ndox mu tilim loolu lu muy firi mooy bu si dem. waaw gàllankoor la wala nga def ko mag ñi si izaa zulzilatil ardu zilzaalaha wa axrajati l-ardu asqaalahaa qaala insaanu maa ba mu jeex mm-hmm. am na nuñ si daan istixaara bi mm-hmm. ñuy tëdd guddi yàlla won leen safara bu fekkee loolu baaxul si yow nga gis safara buy tàkk bu fekkee baax na si yow da nga gis leneen lu lay ñëw nga jëm mm-hmm. noonu la yonent bi wax ne nañ ko def si ñetti mbir si bu fekkee danga bëgg a soxna wala ku jigéen ki am ku góor kuy wax ak moom mu bëgg ku góor ki te nangul ko mu ne naa ko seet lu jiitu nag waxtaanu bay trouver consensus bay trouver bay retrouver ñoom ñaar consensus benn ànd benn nangu. Mhm. foofu la ñu istixaarawee mais xam nga léegi da ngay gis ko am te ne day bëggante nit ñetti at. Mhm. dem ba desul lu dul ñu indi ko première cadeau nga ñëw ne ma oo oh, xoolal ma ma istixaaral la loolu mënul ne nag. Mhm. kon istixaara ba jiitu ne seet labat ga. lu jiitu sax ngay wax waaw wala déet. seetal ba xam ndax baax na wala baaxul bu la nangulee nag bu baaxee. boo defee istixaara mu dëppoo mu baax. bu boobaa yonent bi nee na mën nga say dem. kon loolu la wax ak booy jënd kër kër dañ koy sixaara beneen bi mu wax nee na booy tukki ñett yooyu la Seydina Muhammad wax bokkul nag ak seet si pétaw wala seet si yeneen yi nga xamante ne nii islam da ko fi fekkoon comme li nga wax léegi rek bannir ka mais nit ñi di si liggéey ba léegi di si faj seen i aajo ba tax moo tax du ñu dégg dëgg gi boo leen waxee tamit duñ ko dégg dañuy wax ne nag ñoom dañ ciy liggéey ndax yàlla seet la wax kon nag bu loolu xaraamee rek ramlu ramlu mooy bi ñuy seetee si suuf dafa xaraam. papa Ibou Ndiaye. ba ah. ma ñëw. ci <laughs> mbirum mbirum sëy bi. ndaxte des fois nag sëriñ du ma ne sëriñ sax mais njabarkat yi dañuy juum li may wax rek moo di sëriñu tari tariyaa yi. tari yàq ñoo yàq léegi. Hmm. së sëriñu tariyaa ñoo ñoo yàq. sëriñu tariyaa ndaxte da ngay ñëw hmm. toog. mel ni am benn ami rek seytaane ñoo toog jooy jooy jooy mankat maam jaara ndax maa sonal ca kër ga sama wujju la waaye may ma fa jàmm mayuma salaam nga ne sëriñ bi dama bëgg nga defal ma loo xam ne dina ma may jàmm kooku tamit ñëw liggéeyal la loo xam ne day tax maam jaara génn ca kër ga. xam nga foofu est sëriñ bi tamit am na toor. ndaxte dafa mel ni dañ koo nax. xam nga xale bi dafa am wax bu am solo bu wax. Mhm. biir kër yi wujj peccer go yeeg goro yeeg njëkk yeeg lépp waaye man damay wax ne li indi lii lépp mooy ginnaaw Seydina Mohamed yaakaar naa ne beneen yonent dootul wàcc mais yonent yàlla xaalis wàcc na bari ay taalibe trop li ma lay wax ne la ñaan dafa am solo barki démb huitième jouru Thione Seck wax naa ko man maay nijaay coon góor gi Cheikh Seck bàyyi coon bi mu jënd kër googu ci tali euh, tali ko taaf ñetti doom adama jënd nañu kër googu dee déglul ku jënd kër gi dee ba ñetti doom aadama jënd ko dee papaay coon cek Seck retraité dikk fekk kër gi ñu tabax koo pare mu dikk rek jënd kër gi ñu ne ko ah yow xanaa Cheikh Seck xamoo kër gi nga jënd mu ne déedéet ñu ne ko kër gi de ñett jënd na ko dee mais foo dem am na mag mu yàlla ruus am na ku imam bu yàlla ruus am na nit ku baax ku yàlla ruus bi mu tourné ci koñ bi yem ci góor goo xam ne góor gi Ibrahima sëy lañ koy wax talibeb sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma mu teg moom wax naa ko barki dem ñu bari dañ naan coon fu mu donne way coon papa a ko jëkk a way te papaam agent de police la woon di garde Kéba Mbaye la premier président de la cour suprême mais bu dimanche masaana jot day summi tënni bi sol ay yére dikk booba kër gumalo rek la ñuy jàng-jàng murit mooy takk rajo yi di tagg Serigne Touba ba ngoon jot moo góor gu ñuy wax amadu Diagne mais gis nga kër googu bi mu dikkee wax ko góor gi ne ko ah ku jënd kër gi day dee lañ ma wax ñetti jënd nañ ko dee mu ne ko góor gi ne ko góor gi Ibrahima Sey bàyyi bàyyi Serigne Mbacké Sey ne ko bu subaa na nga fi ñëw ci ëllëg sa mu ñëw mu yëkkati mat la si faay jox ko déggal te Matlabul Chifa yi Serigne Touba ko binde mu jël mat Chifa yi jox ko ne ko boo demee suul ko ca kër ga ba mu demee suul ko ca kër ga ku ne xoolal sek sek fa nekk ba dee fala la yaayi coon nekk ba dee kon yaakaar naa ne ñaan ak ak jiba ak bokkul ñu bare bare bare bare nag parce que léegi boo dee xool réseaux sociaux yi sax da ngay yéem façon sëriñ bu ne ngay gis façon sëriñ yu jigéen yi nag sëriñ yu jigéen yi ëpp sax lii may wax te ñi may yàlla nag lii may wax bu fekkee ne amul mais yow yaa yàlla ah yow doo yàlla yàlla téléphone tewul ak yow ne la lii lii ngay wax am na nañu seetaat suñu bopp xam ne yonent yàlla xaalis mi fi lañ koy bàyyi de boo demee ci armée di gis ku la dàq kër dàq la dàq la oto gën laa neexub ceeb waaye tey juróom-ñaari mètre percale yi ñu yi sang miskin mi moom lañ la sange sange wuñ fi kenn jasineer wala ñu sang la tergal percal bi ñu sange doomu aadama yi lañ lay sange doomu aadama yi nan tu yóbbu daf leen a gënal te tuya tu lu mu bari bari bari boo ko yóbboo ci kër ga jigéen ñi lekk ko mu jeex tuyaaba nag lu mu bari bari bari bari bari boo demee buñ la ko tegee sa kanam nga xeeb ko moo tax def lu baax nekk ci lu baax doxal lu baax dafa am solo jigéen ñi nag xoolatuñ dara parce que euh, euh, dama leen koy wax toujours nobu nobu leen kenn ah, waaw ah. xaalis da ngeen nopp <laughs> parce que da ngay nekk ak doomu aadama boo xam ne <laughs> tey day jóg ko daan yorul dara mm-hmm. amul dara ngeen bokk koñ bëggante bu fekkee ne mbëggeel am na. moo génération bi mbëggeel amu ci ñun ñoo daan bëgg. ñun ñoo daan ànd ak jigéen pendant cinq ans ou six ans di ànd ak moom vingt quatre décembre baali. 31 décembre baali. Euh, euh, euh, le xam sa doo ko fon uh-huh. parce que yaa ngi koy sàmmal virginité bu ëllëgee bu dee sa chance nga jël ko. bu ëllëgee bu dul sa chance keneen jël ko da daan gis ko daan génn xale bu jigéen mu dem ba am jëkkër ñu ñu ñu euh, euh, euh, tëggal ko laabaan woo ko ko daan doxaan mu ñëw ñu décorer ko parce que ànd nga ak ci ngor ànd nga ak moom ci sutura ànd nga ak moom ci li ko indi nag du dara lu dul génération bii génération bii. Hmm. man dama leen a yërëm. barke yonent yàlla Muhammad. <laughs> billaahi dama leen a yërëm. macha allah. ndeysaan li li daf may fàttali rek benn ndaw soo xam ne dafa nekkoon ci benn di fa sëy. waaye jur fa ay doom. doom ya kenn tekkiwu ca. waaye wujj ba nga xam ne moom la nekkal. doom ya ku ci nekk rek macha allah. voilà mu topp di wër. sama wujju dafa liggéey samay doom gis nga kër gi ay doomam rek a tekki fekk la mu làmboo la yaakaar ne sa jëkkër boo ko tarbiyoo li nga xam ne moom la yàlla santaane nga koy def sa diggante ak moom say doom la nga liggéey rek ngay gis ca ñoom ca kër ga. waaye xam nga barki démb wax naa ko ñu ngi koy def ci ñu ngi koy kii ci réseau sociaux yi. Mhm. gis nga ni jigéen daan tarbiyoo boroom këram. Mhm. xale yi tarbiyoo tuñu ko. léegi loo bëgg bëgganteeg nit ki bu nit ne salaamaaleykum seen kër. ñu ne la kii directeur la wala nangam nangam mhm. mu dikk na joxe cinq millions wala six millions ñu daal koy may mhm. kon léegi vous êtes commercial loolu la mel ni marchandise mooy mburu mooy jënd ci bitig bi <laughs> mburu cent cinquante lay jar léegi léegi boo yoree sa sa sa trois millions wala sa quatre millions mhm. lu xale rafet rafet boo dikkee seen kër boo présenté wo dal ne mën naa koo may quatre millions mën naa ko may yow kooku bëggu la ba tey maam loolu indi jabar gi ndax mbëggeel nekk fa ngeen dem ci biir sëy bi après nag problème yi commencé nga jóg na xaaral ma dem seeti sëriñ. problème du ca jóg ku def loo dajal jël. Hmm. loo gis baca hmm. loo ca am muy noona. Hmm. moo tax agresseur ak caga du fi jóg <laughs> barke Rasulullah agresseur ak caga du fi jóg bu njëkk danga nga daan da daan ànd ak nit ki ci ngor. ànd ak nit ki ci diine ànd ba naga ni cana ba. jigéen du ànd ak góor mukk lëngoo. cana ba ba naga ni dañuy dóor dóor yoon. kenn du fa ëmbal doomu aadama mais bi jigéen ne nag yaay bañ nga wax mu ne yaa tere neex mais addina jeex na ñun man damay jekk ba caag billaay ma tiit barke yonent yàlla Muhammad oustaz damay jekk ba caag ma tiit jamonoy xale yii nga xam ne tey li ko indi lépp mooy bu njëkk dañ daan départager góor ak jigéen gis nga sax bu njëkk ndabu góor yi da am ndabu jigéen ñi am jigéen ñi sa daaw ñu bokk góor ñi góor ñi ndab waa léegi nag bu ñu demee ba nga xam ne ah fii àddina toll nga jël sa doom bu góor sa doom sa doomu jigéen jaxase selen ñuy fanaan te euh, bi bés bu ne nga gis euh, euh, ku génn saw làmmiñ jox ko sa jigéen mu mu mu mu seq ko xale yi bu ñu bu ñu jógee dinañu loolu nañu seetaat comportement yi yi yare xale yi te daw njabaraan gi. njabaraan gi bari na. loolu yëpp seet jigéen ñi dama leen koy wax ñoom ñëpp nag lay wax. Mhm. Mhm. parce que ku ci nekk rek. Mhm. ba ngay laataa nekk seet. xam naa loo doonoon. barke Rasulullah seet boo fi dégg mu siiw. ñu naan la kii seet la. seetkat la. ño xam na ñoo ko bàyyi mii ba ngay laataa nekk seet seetkat xam naa la nga doonoon. kon nañu bàyyi euh, euh, euh, réew mi ñuy yëngal. Mm-hmm. di jaxase doom aadama yi. Mm-hmm. léegi mbokk yi jubootuñu. Mm-hmm. wujj yi jubootuñu. xarit yi jubootuñu. liggéeyukaay ba jubootuñu. te it kenn ku ci nekk da nga ci am compte rendu. sa diggante ak rabu semence de renfort. am na solo maam Diarra mu mel ni ñàkk gëm sa bopp rek. Euh, dëgg la damay ñëw sànq ci li euh, sunu maam wax. Mm-hmm. moom moom dafa mel ni chaque jour day joxoñ baaraam. waaw jigéen ñi moom la ñu surtout liggéey na jigéen. pour uh-huh. takku ko. Mm-hmm. bu fekkoon da koy liggéey takku ko ba noppi yor ko yor bu rafet. Mm-hmm. ñu comprendre. dëgg la mais da koy takk noot ko. lu ko digal mu def. lum ko tere mu bàyyi. tàggoog sàggoog. waa kay du ko yor. bàyyi ko ca kër ga ba noppi di def lu ko neex. wallaahi loolu oustaz tamit. Mm. war nañ cee wax wax fa dëgg yàlla. oustaz <laughs> loolu wax. <laughs> loolu war nañ cee wax de. bëri lool ci dëkk bi fi mu toll nii. <laughs> waaw bëri moom mooy li ma wax rek sànq jigéen moom. Mm-hmm. soo ko nootee si biir sëy rek. Mm-hmm. def nga lu xaram. man mm-hmm. nga ñaan nag lu lu leen jibbaale bokkul ak noot moom la sëriñ bi wax sànq ba léegi ñaan ak njibar bokkul. Mm. ku noot sa jëkkër. wala nga noot sa soxna si sa biir néegu sëy ba wax mu ne waaw maanaam dem ba tegg tàggali ko sagoom mm-hmm. lu muy def du ko def si consentement eh, sagoom boobaa du ko defee si sagoom mm-hmm. boobaa def nga lu xaram am na ñoo xam ne def leen am na si sous région bi fii am na si ñoo xam ne mm-hmm. jóge nañ ndakaaru gi dem si ñoom ñu ut loolu loo xamante ne ni nit sa nit warul xalaat loolu demal si bàmmeel nga dem si bàmmeel ñu ne la fexeel ba jël loxo càmmoñu nit. waaw. bari na da waaw loolu ndakaaru gi dafiy jeex jël loxo càmmoñu nit loxo gauche am. wala gegenalal kii waaw yëkkatil bopp néew bi gegenal ko. Euh, mbër yi dañ koy def. mu ngi ne noonu ba pare jël jël jël loolu nga dagg ñu ne la fexeel ba mu nekk sunguf. Mhm. nga dëb ba def si coono bu ne ba mu nekk sunguf. Mhm. ñu ne la def ko si cere. mu boole moo sa jëkkër lekk. allah akbar. day dof comme niw ni mu mel rek lay mel si ki kay sang béy na yéenay raasilihi. foo ko tourné mu jaar fa foo ko def mu jaar fa ban pour lan ndax jigéen euh, moom suñu waajur wax na léegi si waxam euh, pexe teewul nit ci sëy sëy ñax ma fay tee nit boo ñaxee rek di nga ko gis mhm. waaye boo fexee ci biir sëy lu la fa bisa ngi jot boo xam te ne mbooleem loo fexe woon dina xëpp sa kaw mhm. parce que mën nga nëbbu nit ñi nag mais suñ borom subhaanahu wa taala li ci xol yi rek lay fay kenn mënu ko nëbbu Mm-hmm. wax nga ko léegi si sa biir wax xissa bi nga nettali mooy histoire bi nga wax mm-hmm. ñaari jigéen ñoo ñu doon si si benn kër mm-hmm. euh, ñun nit ñu ko jàngalee si téere yi ñaari jigéen ñi dañ doon sëy si kër euh, kenn ki nekk ku jigéen ku ku sévère ku sévère lool ba xarite jëkkër yi bu ñu ñëwee sax wala bu ayee sax duñu bëgg a yendu sa si kër gi keneen ki nekk ku ubbeeku ba ñëpp bu ay ñëpp dañuy ñëw di gaaruwaale kële di wax yàlla dogal fu demee ba mbokki jëkkëram ya xaritam yi dem moom ku sévère ki ñëw si ku jëkkëram nekk nga baal ma nii la ma yàlla bindee sama nature moo mel noonu waaye su ma sañoon nag du demee nii jëkkër ji nekk xam nañu lépp waaye yàlla tamit dénk nañu ko lépp ndax lu baax rek moom moo ko baaxal euh, kële jëkkëram mënul jot si moom lu dul ne daf ko santage ki nga xam ni moo gën a ubbeeku si fitna boobu la doon dundee jëkkëram bu dee fóot mu ngi koy fitna lu mu mën doon lu boroom këram am si solo am si moom rek si kaw fitna la koy amee si moom këy nag nangu gi mu nangu ak nangu gi mu nangul borom këram ne sëy jaamu yàlla la mm-hmm. Mm-hmm. yàlla def njaboot gu tekki juddoo si moom kële nag njaboot gi mu jur yëpp mm-hmm. di taxawaalu di def affaire banditisme ba mu jaaxal waa koñ bi ñu ñëw si jëkkëram laaj ko jëkkëram ne leen gis ngeen kii di njàngal rek ba ñëpp ragal ko. Mhm. moo ma gën a nangul. ba nangu gi mu nangu si la amee sama ngërëm ngërëm gi mu am si moom moo tax yàlla teral njabootam. Mhm. mais kii lu ma laa am si moom si ko fitna la kaame moo yàlla defalee nii. Mhm. kon yàlla dafa màndu. kon jigéen ak góor ñi ñoo si bokk yam gis nga sëy daal. Euh, maanaam bu dee góor nekkal ku galant rek. nekkal ku galant ndax yonent bi de moo wax sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, maa leen gën. ñu nekk si leen mu ne maa leen gën si jigéen ñi ku leen gën si jigéen ñi moo leen gën mm. Mm. waaw parce que nag man mënumaa comprendre mm. nga génn si biti yaatu lool ubbeeku koo ku la gis ree koo gis ree mm-hmm. waaye sa biir néeg sa biir soxna nga di fa gaynde dañu ne góor na nekk gaynde si biti te nekk xar si biir mm-hmm. waaye nekk xar si biti nekk gaynde si biir loolu du wàllu góor yonent bi daal yonent bi jab ay jabaram mm-hmm. am na si soxnaam soo xam te daf ko doon tingóob di course ak ñoom. fala galanterie njëkk. waaw foofu da ngay galant. LHD doo fi nekk <laughs> sax di di di jar ngay njibar. Mhm. boo galantwee du ko jar. Mhm. ndax soxna si day dem ba xam ne mbooleem lu nit ku nite di def rek yaa ngi koy def moom. Mhm. bu boobaa loo ko sant mu def ndax nag nit nag defe naa am na ñu kat olof yi waxee gor ku ko ku ko teral. xaw ma nu tëral ko ku ko tëral tëral ko. waaw waaw ku ko toroxal. yaa ko toxal yaa ko toxal. waaw ki nga dem jëlee dama koy wax toujours saa bu nit ñëwee kër ga wala ñuy maye sëy. Mhm. dama koy wax ñaari euh, ñi mu concerné ñëpp dama leen ne leen yow ku jigéen ki ku góor ki moom moo la war a protéger. Mhm. si sa biir famille. Mhm. ndax ku jigéen ki gis nga jigéen dañ euh, papa ñoo ko bàyyi jigéen dañ leen solo lool. billaahi wallaahi. yàlla xam na loolu dama am ñeewante si ñoom. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. parce que ku nekk dafa may habitude nu mu juddoo famille bu mu juddoo. Mhm. am lu mu xam maanaam yaru si famille boo xamante ne nii euh, peut-être ni ñu yaroo ak moom kër gi mu jëm ni ñu yaroo bokkul te mënuñu bokk sax ndax mënuñ kër mënuñu yem yar. sa papa nga xam sa yaay nga xam say sœur say mag say rakk ñooñu nga nekkal si kër gi ba nga xëy nit ñëw fekk la sa biir kër. Hmm. génnee la foofu. yóbbu la këram. Hmm. pare bàyyi la say mbokk ñu sacrifier la loolu jaaduwul. Hmm. maanaam bàyyi la ay mbokkam ñu sacrifier la. sa soxna si nii sa soxna si naa. yow nga dem ba fàtte. Euh, fàtte fàtte jële bi nga ko jëlee këram fàtte mm-hmm. habitude yi mu amoon yar ba mu yar woon nañ ko yare woon yooyu yëpp nga dindi ko mm-hmm. bàyyi ko sa biir mbokk yi ñu jël ko yàqal la deram parce que am na lu ñu bëgg si moom lu ñu amul mm-hmm. amaana amul lu mu joxe amaana amul lu mu dund lu maanaam li ñuy def léegi ay njëkkeek ay série njëkkeek ay jasneer yu ñu mayeek ay or amu ko mais mu ngi lay série yow déggal na la mais nangu nga say mbokk influencé la ba nga jël toor di ko xëpp sa kaw soxna loolu du ngor wallaahi te looloo bëri si réew mi bu ko defee nag ñu jël jigéen ñi jox leen toor bi te fekk or que yow góor gi yaa am loo manqué. Mhm. kon de góor dafay dellu royuwaayam di yonent bi moom dafa mhm. galant woon. Mhm. buñ ne dafa galant rek kon ëmb na lépp yonent bi jabaram sama sañu joxar bi ko. ne ko booy wax waxal dëgg. joxar bi ko. Seydina Omar dóor euh, jigéen jooju ndax doomam la woon Hafsa la. bi mu ko dóoree mu daanu yonent bi ne lii taxul woon ma wala. mu nekk bu dee dóor mën naa ko waaye dóor mu ko dama la oo pour nga àtte ñu mu nekk xamul ne yow loo wax dëgg la ndax loo wax yàllaa ko wax mm-hmm. kon góor dafay galaa waaye jigéen tamit dafay nangu mm-hmm. jigéen bu nangoo rek mm-hmm. jigéen yii la war a moytu fit si biir sëy jigéen ju am fit ku mat a moytu la koo am te lu mu bëgg a def def lu mu bëgg a wax wax ah, ak kuy onk yonent bi dafa am fukki jigéen yu mu lim nee kuy takk jabar bàyyi leen fi kuy onk si la bokk onk waxuñu onk un euh, un euh, rek mooy koo xamante ne fu mu toog mu ngi jàmbat mm-hmm. sama jëkkër ji woon wala ki mu doon génneel de moom mm-hmm. moom ma nangam loolu moom yonent bi nee na kooku mu ngi lay saaga te yëguloo mm-hmm. ah, la koy limee di ko di ko lim ba mu fukki jigéen waaye li mu si gën a ragal te gën si attirer attention nit ñi mooy jigéen ju am fit jigéen du am fit jigéen day tiit xam ne àdduna jeex na waaw jigéen ñi léegi dañu am fit jigéen ju ñàkk fit amatul amatul oustaz ñu bari dañ naan jigéen rek. Hmm. te firiwuñu baatu jigéen. mooy lan. jigéen. ah mooy jigéen. jigéen. Hmm. tuddul jigéen jigéen la tudd. Hmm. waa ji bon nag est-ce que gën nañ seetaat. te it nag. li gën ci nit ki bu taxaw ci nit ki daanaka bàyyi ma tanewu ko da ko gën. te ku bàyyi ma gën war ngaa xoolaat sa bopp. sutura taxu surtout kersa taxu. yar taxu. lu fan di guddee. waaw ah, yonent na ko fan mënta gudd. te dafa am lu ngeen lu ngeen waxtaane léegi. mooy jigéen ji toog ji dikk. suturaal borom këram. jàmmal borom këram. jaamu borom këram. bokkul ak jigéen ji nga xam ne saa yu liggéeyee bu amee li muy am dem ci njibaraan ne na sama wujju dof na sama borom kër lu mu yor na ma jox. mënta ne. doomu aadama bi. bu fekkee ne. tey da nga ànd ak nit ki. bëgg ak moom lu baax. dafa am jukko yuy nekk ci yow. waaye tey jukko yooyu la xale yi teg fële. bi ñu jëlee jëkkër def ko nawle. am na benn euh, kii bu ma jàllale ci réseaux sociaux yi dal ne jigéen yi. Mm-hmm. léegi sax bu fekkee ne weer deewul wala. gagné wo marché. Mhm. fii jour la ñuy la fanaan. Mm. te jigéen ñu ne sa sër boo tëddeeg sa borom kër waroo ko roof da nga ko war a teg rek ndax rocci boobu mu koy rocci bu difficile sax baaxul. Mhm. waaw léegi nag bu fekkee ne euh, tey àddina bi euh, yonente yàlla xaalis moomu dox na diggante waaw non c'est sérieux mm. léegi ko amul xaalis bokkoo mhm. boo yorul dara. xew mën naa am ci kër gi doo ko yëg waaye mbaa diw yëg na ko téléphoné ngeen diw mbandaari du ko dégg ci euh, euh, ci famille ba kenn ku ci nenang ci ñun noo amee baax na te am am li muy am am solo ami na ko solo amin wu jaadu ci xaalis boobu maam waaw mel ni gis nga ñi nga xam ne ñooy def njabar xaa ñoom ñooy fayeeku lu bëri. Mhm. ndaxte ñiy def lu bon léegi ñoo ëpp. Mhm. ndax autant kat boo demoon ci koo xam ne sëriñ la. wallaahi bu la naree defal dara te mu baax nekk loo xam ne lu baax la. bu mhm. la laaj bu bëri. waaye xool léegi ni dina teg otoom ngir rek def lu bon ka nga xam ne moo di morom. waa sëriñ euh, euh, mbër mu mbërum lam mi ñu fay cent million bu demee ci sëriñ. sëriñ du ko laaj ay ay ay ay ay cent mille franc ki deux cent mille de ay millions lay laaj moom it. est-ce que kooku mooy yàlla bés bu ne ma wax ko bés bu ne ma ne dimanche bu ne sëriñ fenn ñu ne eh <laughs> la ma ne njibaraani la sëriñ njibaraani laay wax nag ndax kuy liggéeyal mbër muy dem da ko naan boo demee daan waaw léegi nag ñaari ñaari victoire ay dugg ci biir làmb ji mais benn ay génn il faut kenn ki bés bu ne nga gis mbër moo xam ne day teg ay indee ñu sotti tuggoom ko. jigéen ñi ci biir mu ngi noonu mu indi lu mat deux cent quatre-vingt-dix mille bouteilles. teg ko yëpp mu tuuroo ko ñu buddi ko ba ca kaw dóor suuf. te ko ko buddi indiwul ñetti butéel. kon jabaraan. dafa am naxaate bu ci nekk goo xam ne. il faut doomu aadama yeewu. xam ne gëm yàlla li muy am am solo wóolu yàlla ko solo. doom aadama bi lu la doomu aadamay ñaanal. boo dee sellal di ko ñaanal sa bopp loolu la ca doom aadama ma ñaanal bénéfice lay doon mooy bonus bii ñuy wax bonus bi ñuy wax ci portable yi sëriñ pour mu ñaanal la bonus la bu fekkee ne yow nag bés bu ne yaa ngi sell bés bu ne sa xol bii te xol bu ca yéene ñëpp jàmm day yendu di ca fanaan loo amul doy la lu waaye am nga yéene ko ko ku la yéene jàmm jàmm ngay am ku la yéenewul jàmm jàmm ngay am waaw boo amee jàmm jooju nag ba pare dikk fek oustaz muy nit ku yiw di di di di di euh, euh, euh, pratiquer alxuraan nga dikk ne ko oustaz man kat damaa jàq mu ne la ah mbaa jàmm la nga ne ko jamono yi daal bëgg naa ku ma ñaanal mais oustaz du yàlla mhm. waaye nitu yàlla daanaka taxoon na ak yàlla. parce que ki la gën a gëm yàlla gën laa topp yàlla. gën laa jaamu yàlla moo la gën jigéen yàlla. boo dikkee ne ko ñaanal mu mu ñaanal la. loola nga dem yàlla ant loola. loola amul kenn ku la naan loolu aram na. waaye nag dem ci ci nit dëkk euh, may may magum soixante quinze ans. Mhm. ngay ndawul vingt ans. ma ma xool la daal xemmeem la daal ne kii daal waruma ko ñàkk dikk nga ne waaye yow paa bi ma ne ah bon yow man nga naan paa bi dugg ci àll bi ba fu ma ne nga ne paa bi laay seet mais bari na fii te xale yu jigéen yu bari yàqu nañu euh, euh, njëbaral la na yàq parce que mag ñi mag ñu sàggan ñi nga xam na ñoo leen jëlal appartement yi ñoo koy fay appartement benn xale bu jigéen yoru fi loo fay appartement di la jox lekk di la jox naan mm-hmm. bu guddi jotee mu taal otoom yoxoo su dikk ci yow ndànk mais mooy yàlla gi nañ ko set et bizarrement ñooñu jeex na de dañ lay daaj mm-hmm. parce que amuñu yéene takk la dañ lay daaj di foo ak yow dëgg la te carrière jigéen dafa gàtt de fa dëgg yàlla doo xam carrière jigéen góor ñii ñoo leen gën a gudd carrière ñu yor la carrière jigéen ñett la jànq bi jeeg bi soxna si. Mhm. heure boo nekkee soxna si kenn soxlaatu la. dëgg la waaw. ndeysaan jigéen ñi daal ak ñëpp sax ne war nañoo delloowaat suñu xel ci yàlla vraiment. dëgg la ndaxte daf may fàttali euh, benn anecdote boo xam ne sama daan daan na ma ko doon nettali mu ne waaja dafa dafa nekkoon di sukkuraat sukkuraat ba metti torop muy sukkuraat di sukkuraat ba ci kanam mu woo benn doomam bu mu toogal. fekk am na jigéen goo xam ne dafa sëyoon ak moom mhm. bam sëyee ak moom ba tas ak moom ku jigéen ko sëyaat na ñett sëy yoo xam ne bu duggee rek génnaat mhm. Mhm. dikkatee ku góor ko moo ko def ci moom ba muy sukkuraat nag xel ma dem ca la nga xam ne defoon na ko ah voilà ba avant muy muy gaañu ngir mu am jàmm dafa mujj woote ñu wowal ko ku jigéen kooku mu balu ko ak waaw ni ko sëy boo mësa sëy mu tas rek man mii maa fa jaar leptoo faytoo rek leptoo faytoo wax naa keroog ne bu yàlla bindee doomu adama bi day dawale am xelam boole ko wërsëgam muy marchandise liggéey gañe ak liggéey perte nekk mm-hmm. rek a nekk mm-hmm. ki liggéey gañe nag mooy ki xam boppam day doomu adama yu bari xamatuñ seen bopp bala ngaa man sa bopp da ngay say bokk mm-hmm. barki dem bi coon génnee àdduna bi doom adama yi kërëng kërëngee ba ñu teg ko nag ci kuusu mel dañ ne na ñëpp deltu ginnaaw ana bokk yi nañu seet ne àddina day ñun ñi nga xam ne euh, fekke nañu lu lu lu xaw a bari ci mag yi mag ñi daawuñ doxale nii fekke nañu lu bare bare bare bari ci réew mi avant réew mi am indépendance alkaat yi nekkoon ay tubaab yu xonq cur fekke nañu loolu kon nag mag bu duggee ci koñ ba génn ca koñ ba ndaw di bëgg a dugg ca koñ ba mu ne la eh moytul koñ bi ah bul fi jaar mm. wiiril boo jaaree ca koñ ba bu la fa xaj màttee wala jaan màtt la fa boo dee da nga xaru man am na benn am na anecdote boo xam ne ma sama dal bi Serigne Mansour si sogee toxu si Pikine borom daara ji toxu si Icotaf mais bu guddi jotee pyjama lay sol yor kurusam sol koppati mu weex di doxantu ca tali ba ca raay ba booba dama daan tëgg sabar ma dem ginnaaw raay tëgg fa benn mbappat bay ñibbisi seen ko mu yor kurusam ay deux heures du seen ko mu yor kurusam ma na i eh, sëñ baa ngi ne daw dikk daal di koy nuyu mu ne ma ah waaye ndongale foo jóge nii ma ne ko maa ngi jóge ginnaaw raay dama demoon ci mbapat mi seen la rek di la nuyu mu ne ma jaaral ci koñ bi fii nga doon jaar bul fi jaar jaaral ci koñ bi ma jaar ca koñ booba ji nga ca ëllëg sa bi ma xëyee ndekete koñ bi ma naroon na jaar ñaari doomu adama yi doon liggéey kafal ñu au yi ndekete moo dagg ñu teqataloo ko ñoom seen carte d'identité rek lañ gis mais ñoom dañoo seey au excitant yi la ñu teqataloo te dañ doon liggéey kafal moo tax mag du yàlla mais yàgg na ak yàlla mhm. Mhm. nañu jëla jëlaat suñu bopp mhm. teg ko ci rabu samaatuma fi ard jaamu yàlla nu liggéey nekk ci lu baax wax naa léegi ne am am li muy am am solo amee na ko solo am na doom aadama yoo xam ne ñu ngeek ay milliards mais tey boo xamoon nañu amee seen xaalis billaahi buñ la ci mayee ñaar fukki dërëm doo ko lekk te daa doomu aadama tant que mi ngi lekk ñaqam billaahi di jaamu yàlla di ñaan yàlla bés bu ne yàlla dolli ko moo tax toujours damay ñun ñi nga xam ne tey fekk nañ lu bari yàlla def ñu ay waxkat nañuy wax ak xale yi am na xale yu bëgg a dégg mais mag ñiy wax ngir yàlla ñoo bareetul mag ñiy wax mag ñiy wax ngir yàlla ñoo bareetul ñetti waxkat rek am ki ñu wax loo ki war wax ak ki wax war mm-hmm. yéen ñii yéen a war a wax yéen journaliste yi mm-hmm. yéen a jóg ne journaliste laa bëgg a doon waxkat laa bëgg a doon mm-hmm. kon la nga wax na nga ko càmbar seet ko ba nga bañ caa juum te bés bu ne journaliste yi jégalu fi bés bu na nit bind article mbaa mu wax loo xam ne danaan jéggal ma kooku loolu waru ko ki ñu wax loo bëgg-bëgg ko ko wax loo lay wax mbaa dootuñ ko wax loo ñun ñi wax war na mm-hmm. nañu seet li jaadu mm-hmm. liy defar te du yàq mm-hmm. li ñaw ta du xotti waaye lu tegu ci dëgg ci siraatikal mustaqim wax naa fi ne la vérité est le verbe de Dieu. donc disons la vérité même si doit nous porter préjudice. am allah maam. xam naa ne nag bi yaatu na yaatu boo xam ne buñ toogee di wax fii ba suba du jeex waaye rek dañ koy tënk oustaz ñu tàggatoo rek lan tàggatoo. waaw macha allah di am mbégte ci bokk ak jotaay bi ni mu demee. Mhm. di ko rafetlu xam naa daal li ñuy tënkee mooy. Mhm. njibar. Mhm. si kabaayir yi la bokk boo déggee kabaayir mooy bàkkaar yi nga xam ne bu ko nit ki deewaalee dem safara. Euh, yonent bi dañu woon njibarkat yi dañ leen war a rey. <laughs> njibar. seen xadd liñ leen di àtte mhm. mooy ñu rey leen bi sëy fi si jaas yi mhm. noonu lañ leen war a rey mooy njibarkat comme ni ñu ko leeralee fii ba mu leer mhm. loolu duñ ci delluwaat kon njibar si bàkkaar yi gën a bon si bàkkaar yi la bokk ku si nekk wala ku si nekkalu di ko defal loo di ko defloo ay nit ñu di la ko defal ngir sa ay bëgg-bëggi bopp jàppal ne boo tuubul loolu bu la yàlla jëlee si anam boobu kenn mënu la tere dugg biir jahannama yàlla nañ si yàlla musal weesoo loolu noonu ñu ngi leen di ñaanal bu baax waa Equivox comme ni ñu ko waxee woon si tàmbali bi euh, gis nañ fi liggéeyin woo xam ne wax dëgg ne yàlla bu dakkul yàlla dina leen yékki comme jant te inchaa allahu yaa rabbi bu neexee yàlla si barke yonent bi ak àjjuma ak tey ji yàlla na yàlla yékki leen comme jant góor góorlu ak yitte moo koy may comme li góor gi wax rek moom ni mu ko waxee ñun ñëpp ñoo si bokk yam ndax ñoo bokk génération ay ndaw lañ mhm. kon ñun ñëpp la war mhm. maanaam liggéey gëm li ñuy def ñaareel bi te di dégloo nopp bi nga xam ne moom moo ñuy jariñ mhm. buñ nekkee si entreprise di liggéey ñun ñëpp comme ni ñu ko bokkee nii si yéene bi mooy euh, maanaam yéene bi mooy yegg fu kawe waaye li ñu koy may nag dañuy fexe fexe fexe ba benn nit du dugg si seen diggante dugg si seen diggante nag mooy kii moo war a def lii kii war a def lii kii moom moo fa jekk moo fa jekk ku nekk la nga war a def rek soo ko defee yàlla dina la defal sutura ba fi ngeen bëgg a ngeen yegg fa yàlla na ko yàlla def si barke yonent bi di am bu baax si jotaay bi ñaan yàlla na yàlla def ni yàlla na yàlla maanaam gërëm jotaay bi yàlla na bu gërëmee jotaay bi ku si nekk si ñun dina la fay yiw li ñuy ñaan yàlla nag mu fay ñu ko mooy yàlla na ñu yàlla defal ngëm gu sax ñaareel bi ku nekk lii la tax di jóg yal na la si yàlla mottalil mm-hmm. ñetteel bi képp ku si si fii si jotaay bi rek yal la yàlla may wér mm-hmm. may la gudd fan defal la sutura si biir ak si biti am nañu mbégte loolu soxnaa mi jërëjëf jërëjëf waaw man day dañuy santaat ndax ëttu maam ngeen wax mm-hmm. dafa am nag lu am solo loo xam ne doomu aadama war na koy sóoraale sóoraale wax naa léegi ne seen carrière yàggul janq bi mm-hmm. jeeg bi soxna si mm-hmm. jeeg bi pour quelque temps la rek mm-hmm. mais heure boo muuroo yor sa kurus kenn bëggatu la ku la jël dafa ànd ak yow ngir yàlla kon seen seen carrière yàggul mais doomu aadama nag war a organiser boppam mooy li ngeen waxtaane léegi jëfe ko dafa ëpp solo jëfe ko bi mooy seet jikko yu baax seet lu baax seet lu jaadu seet loo xam ne boo ko defee wala nga wax ko kenn du ne cim tey moytu accident wax wax day accidenté bu accident wax amee nag bu ñu dikkee constaté ko ba pare bu verdict ba ñëwee rëccu lay doon ku wax lu bon rëccu ku wax lu ñaaw rëccu émission bii nag dafa bokk ci émission yi nga xam ne doomu aadama yu bari dañ ko suivre ndax li tax ñu di ko ñu di ko ñu di ko suivre man nga cee déggee loo xam ne déggee ko woon wala nga xame ca loo xam ne xamoo ko woon wala ñu fàttali la ci loo xam ne fàtte woon nga ko kon ëttu maam dafay émission boo xam ne euh, c'est culturel waaw ñu ci naab suñu bopp ñun ñu koy def d'abord euh, naab ci euh, borom kër yi ñuy seetaan ak di ñu déglu waaye jàjj ci xale yi ndax xale yi ñooy aveniru ëllëg nee naa ñaari yi yaakaar nañu ci ñun mag ñi diine ji xale yi lañ ci yaakaar réew mi xale yi lañ ci yaakaar te it ñun mag ñi nag bu ñu sàgganee ba defaruñu xale yi ba ñu defaru fu xale yi yàqoo ëllëg wala fu réew mi yàqoo ëllëg ñun mag ñi am nañ ci part de am nañ ci part de responsabilité nañu wax xale yi wax leen ne fii la ñu mag ñi tegoon lii la ñu mag ñi tegoon fàtte nan ñaari droit yi droit de la femme ak droit de l'enfant lu ci nekk tubaab bi dañ koo naxe dañ dañ koo naxe rek parce que bu jabar amee droit ci jëkkëram nu ko neex la koy sëyal bu doom amee droit ci way juróom du ko respecté loolu naxe naxe la ku jaamu sa borom kër yàlla dimbali la ku bëgg lu baax ëllëg da nga koy tarbiyu da nga koy da nga ko fay xaar da nga ko fay muñ man daal damay leen di ñaanal yàlla yàlla nañ yàlla may dégg ak topp parce que damay wax ne saa yu émission amee wala euh, am na ñu bari ñoo xam ne du ñu dégg dañuy déglu te déglu day dugg ci nopp bi rek génn ci nopp bi jeex na mais boo déggee bu ñu waxee wax bu am solo da ngay euh, taataan wax bi boo taataanee ba pare segg boo seggee wax bi ba pare tànn boo tànnee rek am li nga mën a jariñu duñu wax wax ba mu jeex te amul njariñ boo ko boo ko tataane nag segg ko boo paree tànn ca la nga bëgg jël ko euh, euh, euh, jariñoo ko moo tax yal na leen yàlla may wér def leen jàmm xale nag bu bëggee gudd fan dafay moytu fiire ku mbëpp dee leen sàkku yàlla na nga gudd fan yi mag te barkel di daw su booxul ma lay mag sëriñ bi ëpp ci sëriñ si nag doole. mooy tant que say way jur ngi dund. jël leen def leen seen sëriñ d'abord. nday ak baay amul remplace. boo gisee Serigne Touba Mbakke Xaadimu Rasul mu baax mi boo ma san dikk ne ko aslamtu nafsi mooy ndax tàggoo nga. tàggoo nga sa ndey wala nga tàggu sa baay. mais am na ci booy yu bari yoo xam ne. réer nañu réer goo xam ne topp Serigne bi ba faale woo sa ndey faale woo sa baay loo am jox ko sëriñ bi doo jox sa baay dara doo jox sa yaay dara di nga torox àdduna te boo dee yàlla lakk la foofu laay jeexale am man li may tëjee rek mooy euh, daal di yedd yi nga xamante ne ñoo di suñuy morom. Mm-hmm. du ci mel ni maîtresse des hommes mariés. Mm-hmm. ndax dañuy bëgg waa ji ñu nekkal takk leen. Mm-hmm. te takk ba dañ koy teg ci kaw kañ fay fekk dañ koy dëjërti. te yaakaaruñ ko fenn lu dul ci njabar gi. dem fa duñ ko sëyal na mu ware yàq xolu jàmbur yàq àddina jàmbur te la ñuy la la cay mujj mooy lan liggéey ko jël alalam dem seen yoon mhm. lépp rek ci njabar gi nee naa la maraboutage dans le mariage moom mhm. buñ koy wax fii ba suba duñ fi jóge mhm. nañu bàyyiwaat suñu xel ci yàlla ubbi suñu xol yi dugal ci ñëpp ndax ñëpp kat xaj nañ ci loo am nga doyloo ko mhm. parce que ñàkk a doylu tamit mooy waral yenn yi mhm. gis sa wujju mu am lii nga ne di nga ko am mhm. dem liggéey ko alalu àdduna tax nga liggéey sa borom kër ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne xam naa euh, ci fan yi di ñëw di dinañ ko gën a yaatal insha allah waaw maa ngi fa <laughs> dëgg yàlla maa ngi euh, nuyuwaat euh, sama maam. maa ngi lay fay um, ah, imam di la ñaanal yàlla bu baax di leen baax a baax. <laughs> amiin amiin yaa rabbal aalamiin yéen tamit ñu ngi leen di ñaanal. lu ci mel ni imam ñoom seen taxawaay dafa am solo lool ci dëkk bi ndax bu ñu juumee rek ci ñoom la ñuy daal di dem. ñu daal di ñuy gindi. kon ami yooyu tamit maa ngi lay ziyaara di tëjee foofu rek. <laughs> wallaay imam nag di la ñaanal parce que dafa am lu am solo. Mhm. doon sa baay yomb na. Mhm. mais doon sa baay jafe. te bu fekkee ne. alaaji euh, alaaji Ablaye Thiaw Laay doomam ji ñuy wax Seyna Issa Laay dafa ma wax wax bu am solo barki dem bi ñuy euh, daje ci benn tudd dama wax ba pare mu ne ma ña ko bàyyi ma ne ko mu ne waaye maa la bëgg waaye ma ko euh, waaye laay laay maa la gën a bëgg mu ma bés mu ne imaam taxaw dal ne eh defar leen sàppe si mbagg ak dal na mbagg ak mbagg amul solo bés bu ne nga sësëg mbagg koo xam ne bu sañoon mhm. bala ngaa génn jàkka ji dee li am solo mooy xolo xol li Alaaji Abdou Aziz daan wax naan yàlla na yàlla tàppe xol yi dafa am solo mhm. nañ leen bëggante te yàlla tax mhm. àddina bi kenn xamul lu fi indi kenn xamul lu lay delloo te àll àddina ji fi lañ koy bàyyi kenn deewul ñu gege na la say milliards kenn deewul ñu gege na la or wala beneen affaire nañ leen yaamu yàlla dimbalante jàppalante xam ne euh, sama benn xarit nee na ma Euh, euh, euh, yomal xiyam soreetul eh, de. waaw léegi yomal xiyam jot. kon nañu waajal suñu bopp. incha allah yàlla de moom day day àtte te teel balaa ngay dem sax. <laughs> wallaahi. ndeysaan am na solo surtout sama mbokku jigéen ñi maa ngi leen di dolli di gën a ñaax a ñaax ndaxte nag dëgg la xamuñ bay xamle waaye yeewuñu tamit bay yeete waaye dañoo jàpp ne luñ fi wax rek njëriñ lay doon di ngeen ci am lu ngeen ci jàng ba jëriñoo ko. émission ëttu maam la woon nii lay demee saa su nekk waaye nag ñu ngi leen di jox dig daje rek beneen yoon incha allah ci yeneen itam duma dem nag te gërëmuma ki nga xam ne rek moo di sama maquilleuse bu ñaawul boobu di mi Mimi sànni waaye ak sama cadreur yi nga xam ne ñoom moo wër ñoom macha allah aw ma seen fay waaye itam yéen ñiy seetaan amuñu seen fay ndaxte nag buñ toogee fii ba ñu ñuy déglu yéen a tax jërëjëf beneen yoon ci yeneen itam.